ñun ñëpp suñu yëfi ñëpp mooy suñu baax donc yow imaam ñu la ko tabax laa ko rek dafa def mu wax dara ñun tar yi fi teew yëpp nag di leen sant di leen gërëm bëgg ñu waxtaan tuuti rek xam naa wax bi dëgg waaye lépp xam naa tey yow rek kon suñu borom mi nag ci wàllu ñu doon ay figure sant suñu borom mi ñu teew dundal ay doomu aadama sant suñu borom mi tànn si am xam muy suñu ngir sant ko itam ci boole gi ñu boole Sëriñ Tuubaa ñu def ci dëkkam bii Sëriñ Tuubaa nag li sore woon lépp dañu koo liggéeyal bu def loolu lépp mu jàppale ko kon nag war noo toll te bu loolu moom ci xel li dëkk kon ay ñun ñëpp ay lamatal dong la ñu doon maa sëñ Mourtada mi kon tey ñoo ci saako yi di yanu dafa ne xam ni sëñ dafa def rek lool kon nag li mu bëgg ci noonu war nañ kem day kàttan li bañ ñu dëkk koy bañee suñ kem day kàttan dëkk bi dëkk mujj la dëkk raw la dëkk sowetaas la ku nekk itam ngóor lu bàyyi la ndimbal sëñ bi rek fi bàyyi ku amoon xëttal mu sànc ko la bëgg danga koy bëgg leen dañ nga def ko bañ te ko nekk ci moo moo ko xabi ñu tax ko ba génn ko bis bu yow ña nekkoon di naaw leen wala nekkoon di buux bañu nota notel bañ not dee wala lay leen moom moom réeré ko ak nag alaaxa ko yàlla dogal nag ëpp soxla wu dara wax la ko muy mooy diine ji lu teel boppam xale yi bàyyi ñu ne ko yokk bayan ko doon def ay jur yokk ay tari yokk kon nag ku yor loo xam ne sëñ Tuubaa doon xeex soxla wu kon ña ko soxla tam nga jabote loolu leen jàppal te taalibe yi ak jullit yi pour jullit nekk rek jabol sëñ Tuubaa bokk ndax ku wax ashadu an illa llaah daf laa jabol mu kese kon nag day aji ñoo ñu jàpp leen yërëm leen dimbal leen bu nekk yu bay ñu jàppale ko ci mbay bu dee kuy liggéey leen jàppale te dañuy xam ñaawoo bu dikkee na nga fete war mu sawar yonent bi daa ak noonu yëpp sëñ Tuubaa digal kenn du ci dëkk ku tool ko dafa war a mooy suñ dajee fii bii nga xam ne dañuy barab sëñ Tuubaa la ndax barab bu fekk Mm-hmm. suñ bi daa daa suñ dëkk ngir liggéey jaamu yàlla njëbal suñ ci waa jii fi dajale tey dalal sama mm-hmm. ko sëñ fa doom sa sëñ doxaare seex mi suñ naa ko mën naa am yaakaar nañ ci am euh, rafetum jot xel mu dal mm-hmm. li nag mooy ci nu nu ci loolu jaam yàlla loolu ay jur ay fay ndax luñ jegee fay bi dal ko nekk di lu mu bëgg a bëgg amul njëriñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax na ana jël kulli taqsir wala kaana abasiya ana bari umin kulli fajin wala kaana abasiya képp ku ragal yàlla daal donte ci xamas nga bokk éthiopie nga bokk maay sa noonu waaye képp ku ku dëng itam bàyyi naa la donte xëy na ko doon néew la ci nga bokk te sëñ Tuubaa dafa wax moo tax sax moo ko wax ku ma sori tey def di wëru loo sori sori yow ko waaye ku ma jege tey def di wëru loo sori loo loo jege jege yow ko sori kon nag man fexe ba jege tax bañu sori ni ñu koy mooy li sëñ bi bëgg rek ñu nekk ndax jàppal loo ci itam ndax foog ma la wax ak sob bi ak xeet loolu ko ne mën na murit nag neexut a xam ndax euh, plan ak passé dañoo ko bokkul te ñoo xam ne dañuy jàng rek taalibe kat jàng jàng jàngaloo nekkul moom jàngul pare jàngul pare lu dox tax kenn yàlla moo leen te léegi ñuy jàngal taalibe xamuñ ci taalibe dara ndax duñu ko ku sëñ Tuubaa yor leen bi yorwul moo tax nag yu mag yi muy lu xoog ba mel ne xaalis wala muy wut te boo dee su bëggee doo fekk dara mbooloo taxu sëñ Tuubaa daan daw nii yëkkati di loxo nii bi sax moom la ko waaye nag naxkat yi ak tappalekat ak caaxankat yi ñoo fi baree baree ba bis ñu jàpp def ko dëkk mu mu dëkk sa dëkk dëkk lay doon di yaat yaat moom kon dëkk ni ni ñu bañ xam ne sëñ bëggoon xam ne lu ñu bañ daw ñu